man ba Bassel laa tudd Ndukumaan waaw xanaa kontaan te neex ndax da daan lëndëm doo gis accident dafa daan sax sareet yi mbëkkante xale yi oto mën naa tourné du la gis nit du gis kenn du gisanteeg sa morom bu événement amee seet buy sëyi guddi da ngay gis xale yi dañuy daw ba mbëkkante am na xale bu ci loru sax ci mbëkkante lépp ci lëndëm gi moo tax courant bi ñëwee dañ cee kontaan am ci mbégte di ñaan yàlla mu sax te gën a yokk incha allahu rabbi waaw waaw ñoo ngi sant bu baax a baax ginnaaw bi mu ñëwee ba pare bëggoon na loo xamante ni si mooy li nga xam moo ni jàppandal ci liggéeyu dëkk bi moo xamante ni si lu courant di marsal la bëgg nañ ko si dëkk bi ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni si dinañ jàppale suñ liggéey ndax courant boo ko amee développement day daal di commencé ndax machine man na cee sosu man mii ngay gis at atelier tailleur laa yor damaa pédale bay bëgg a dee kon courant bi tey bu egsee damay branché samay machine toog di ñaw duma amati benn jafe-jafe samay tànk da daan metti lépp di ma di metti te ñàkk courant rek moo ko waral waaw. asalaamaaleykum ñoo ngi leen di ñu ngi kontaan góor caw gàddaxay gàddaxay courant bi kay ba nu ko dalee jooy léegi yàgg na lool ñu di nu dig rek di nu dig nuy yaakaar ba dëkk yi ñu gën a jege sax di am amuñu di ko yàlla dogalee ah, ministère bi ñëw fi digg nu ko itam ñuy yaakaar ba yàlla dogal ñu andi ko bi ñu ko indee waa dëkk bi yëpp kontaan nañ ci saka dañoo lëndëm mën lool sax bu guddee waa léeg-léeg yàlla def fi jëyee ñëw fi booy dem doo am foo teg sa tànk léegi nag ginnaaw yàlla dogal na fii ni guddi sax boo génnee làmp sax mën nga koo bañ a yor kon kontaan nañ ci sant nañ ci euh, Macky sàll ak njabootam yëpp daal sant nañu gërëm nañu dëkk bi moom tuwaar fakal la fii ni nii bu guddee fu la neex teg sa tànk te mosoo ko ñime waa tànk yoroo làmp courant bi yàgg nañ ko bëgg yàlla indil nañu ko bu ñu ko indi itam wax dëgg yàlla jàppandal nañu ko ndax kër yi yëpp baarase nañ te laajaguñ ñu ci benn dërëm nag kon kontaan nañu ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm jërëjëf. Astou Yade laa tudd Astou Yade waaw kaddu xëy waaw. amoon jafe-jafe moom ndax bu nu amaa di jàngul dañuy luy ay groupe groupe yi ñuy jàng ba ci xaaj day daal di coupé léegi nag bi nga xëy ne courant bi ñëw na danoo sant yàlla jul ci Muhammad sallallahu alayhi am ci kontaante lool. ndax bu njëkk dan daa am ay jafe-jafe lool trop dëkk bi lëndëm lu ne mën na cee dugg ay saay-saay mën na ca xam nga dëkk boo amul courant day am jafe-jafe bu yàggee saay-saay mën na fee dugg la mu def ko waaye fi ne nii am nañ ci kontaan bu baax a baax a baax indil nañu njariñ bu baax ndax ñun fi mu ne nii bu koor mu musaa ñëw dañuy tas ci galaas nu waree jaay mbusum galaas fukki dërëm suñu indee gaar dañu koy jaay 100 francs fu ne nii nag bu ñu amee courant wut sunuy télé wut sunu sunu di defar sunu courant sunu kii galaas di jaay sunu sunuy sunuy kiis du am benn jafe-jafe daal kontaan nan trop. Ousseynou Bane. Ndukumaan Fall. dañ koy rafetlu rek parce que lu nu yàgg bëgg la mënuñu ko am tey bu nu ko mayee dañ koy sante yàlla daal xam na mbégte daal lañ ci am ak kontaante. waaw làmp yi man dama voyagé woon ñëw fekk ko fi moom même bi muy tàkk dama yi ñëw fekk mu tàkk metti lool chaque jour ñoo ngi si lëndëm bu metti jaan yi màtt nit ñeeg lu nekk si suuf nit ñi dox du ñu xam fa la ne aw koo gis làmp la yor lampe pétrole torsu yooyu rek ngay gis si dëkk bi mais depuis bi làmp yi tàkkee ba tey pour nga gis nit ak torsu sax lu jafe la kon ñoo ngi koy rafetlu di ci kontaan li nu gën a bëgg daal mooy compteur yeeg yooyu yëpp courant bi bu buñ ko mënoon a balaa tabaski lu li nu gënal nag loolu ci la gën a bokk parce que nit ñi bëgg nañoo yor jur pour nga yor fi jur sax lu jafe la chaque jour saaj saa ngi nuy sonal nin ko dundee daal metti na lool daal instant bi daal dañ koy rafetlu tey ñaan yàlla seen yéene mu egg waaw